الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فإن الأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة من أخطر مراحلها مرحلة جديد لم تعشها من قبل هذه المرحلة تصمم بما يلي mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi xeet wii di xeetu islaam umma bii di ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey day lu am lu kenn amul sikki sàkk mooy dañuy traversé di romb jamono yi gën a dangereux ci jamono yi xeet la woo xam ne tey ñu ngi leen di pamti pamte ci jamono ci kaw suuf ci wàllu yépp xeet la woo xam ne tey coono liñ ci nekkee foo ko takk wees na ko ci mettital ci toroxal ci doyadil ci rey loo ko takk rek tey xeet wi wees na ko dem nañ sax ba bu ñu leen tooñee du ñu ñemee fayu ndax bu ñu fa bu ñu fayoo ñu tam leen ay dëmm xeet la woo xam ne tey mu ngi traversé di romb marxala yoo xam ne jadida lam ta isha min qablu wallahi li ñuy dund tey ci mettit sahaaba yi dund nu ko woon amul benn jamono bu jullit ñi dund ndettit wu ñuy dund tey xeet wi di xeetu lislaam moo tax ñuy romb ay tomb yoo xam ne toll na ci fukk ak benn yuy wane étape yooyu ñuy romb tey bi ci njëkk awaluha daufal umma في جميع جوانب الإقدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية نيجي رومب تاي étape boo xam ne ci doyadi xeet wi lot gi ñu lot ci lépp pas-pas bi baaxul politique bi baaxul économique bi baaxul société bi baaxul jikko ji baaxul comportement yi baaxuñ moo tax mu nekk daufal umma fi jamiil jawanibiha ci mboolem wàll yi te xam ngeen ne yii ñu lim xeet wu ko yàqule sa dara dootul baax ci kaw suuf pas-pas xeet wu ko amul yàqu na te jullit yi tey seen pas-pas yi ñoo yàqu xoola jullit yi feetu 31 décembre di taal ay fetaar jullit yoo xam ne dañuy def ay bopp neen jullit yi watar seeni tubéy julit yuy fecc ay musique julit yuy caaxaan julit yu bëggul yàlla bëgguñu yonent julit yoo xam ne seen bopp bu ñu reyee seen mbokk ñu kontaan sibile julit yoo xam ne bu ñu amee ndam nga gis ay julit mer julit yi foofu lañ toll tey ci doful umma ci pas-pas ci politique foofu kenn du wax saa yu ay nit góorgóorloo ba samp kàddu yàlla ñu ne ñi ay terroriste la ñu ñëw jëlee leen indi ñeneen moo tax foofu moom amul sax yàgg économique bi moom gis ngeen julit ñee ci gën a yambare gën cee yaafuus société bi kazalik jikko yi moom waxal bul noppi yépp a yàqu comportement yi kazalik ñaareel mooy tafarruqul umma ila duwaylaat li kullin minha zaimuha wa arduha wa siyasatuha wa ahdaafuha bokk na ci li tax ba tey ñuy traversé jamono yu doy waar mooy tàqale bi ñu tàqale jullit yi def ko ay état état duwaylaat xeet bu ci nekk dëkk bu ci nekk ñu utal ko benn président ñu utal ko trottoir utal ko frontière ñu utal ko politique boppam ñu utal ko ay jubluwaayu boppam nga gis jullit yu dëkk bokk benn sous-raison xoolal sunu diggante Gàmbi fi mu nekk ni bu nu yàlla dimbaliwul ci ay at yu jëm guerre da fi am entre sénégalais gambien yi bu ñu yàlla dimbaliwul trop ñu nag Mauritanie gis ngeen xoolal bokk waaye dañuy dagg suuf si nga gis yaay ji dëkk fee papa ji dëkk fële ci koñ boo xam ne ñii dañuy taxaw di seen ñee ñii taxaw di seen ñii ñu ne frontière bi fii la ñee am politique seen politique bopp ñii am seen politique bopp ñii am seen suufu bopp ñi am seen suufu bopp ñi am président ñi am président du ñu bokk jubluwaay ñu ne ñee ay sunnit lañ ñii ay suufi lañ ñee ay sunnit lañ ñii ay chia lañ ñooñu fan la ñuy daje ba yowmal qiyaam dootuñu daje parce que xam ngeen ne pas-pas yooyu du benn ba yowmal qiyaamati même bu ñu bokkoon jàkk ji bu ñu paree ku nekk danaan këcc këccaaral kanamam di wan sa morom na yow doo jullit yéeféer nga dangaa ñëw ci jàkk ji mais waroo julli tey ñun ñëpp noonu lan mel parce que dañ ñoo taqale te xamuñu li ñu taqale tafarruqul umma dañu taqale xeet wi du waylaat ay état ñaata état ñoo am ci islam ñaata réewu jullit ñoo nekk ci àdduna bi xeet wu ci nekk dafa am président wala mu am roi wala mu am nangam xeet wu ci nekk dafa am trottoir xeet wu ci nekk dafa am politique gu boppam xeet wu ci nekk dafa am ay jubluwaayu boppam lii jubluwaayu waa Sénégal du jubluwaayu waa Gambie lii jubluwaayu waa Gambie du jubluwaayu waa Guinée lii jubluwaayu waa Guinée du jubluwaayu waa Mali fu ñu jëm te ñun ñëpp ay jullit lañ laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñetteel mooy iftiraqu nnaas daaxila kullu dawla ila tawaif wa ahzab ci biir xeet wooyu encore ñu tàqale ba du ñu laalanteeg seen i dëkkandoo ci biir société yooyu xeet yooyu dañ leen tàqalewaat ginnaaw bu ñu tàqalee globalement dañu ñëwaat ci biir réew mi ñu tàqale ñu xoolal Sénégal rek bu leen dem feneen da ngeen di jaaxle ñoo leen Sénégal ñaata këru diine ñoo fi nekk lim leen ko kenn xamu ko këru diine bu ci nekk bokkoo ak sa morom jubluwaay te lu gën a dangereux da ngay ñëw ci biir tijaan yi fekk fa téeméeri kuréel bokkuñ nga ñëw ci biir murid yi fekk fa téeméeri kuréel bokkuñ nga ñëw ci biir sunni yi fekk fa téeméeri kuréel bokkuñ bis bu nekk kuréel bu bees di juddu bis bu nekk kuréel bu bees di juddu te li dangereux tey même Cheikh Ahmad Bamba ak El Hadj Malick bu ñu dekki woon nga ni leen ñun de gis nañu nga ni nga wax Serigne Touba gis naa murit boo xam ne du julli du woor te neen day dem àjjana day day jaaxle danaan man de loolu indiwuma ko fi woon bàyyi ma ko fi woon. moom sax ñoom sax seen tarixa yooyu ñu fi bàyyi woon gars yi dañ koo yokk di ko di ko di ko dagg ay dagg ay ay parcelle parcelle di continuer di dem. loolu mooy même ci biir dëkk bi dañoo tàqalewaat julli di ba duñu gën a bokk kañ la ñuy bokk kon kañ kañ la ñuy dend alquran lan la wax wa anna hadihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa abuduni benn xeet ngeen maay seen borom jaamu leen ma suuf si maa ko moom ñoo bokk benn suuf benn borom benn yonent benn téere benn diine benn jubluwaay suñuy julli ñun ñëpp kaaba la ñuy jublu wala wala ñun ñoom ñoo bokk benn yonent wala ñun ñoom ñoo bokk benn islam wala waaye mununoo déggoo kon am na lu nekk ci biir benn borom xam-xamu arab mu ne ittafaqal muslimuuna alla yattafiqu ci arab yi la ko jëme woon ittafaqal arabu alla yattafiqu dañoo reeñoo ñun ñëpp ñun jullit yi dañoo reeñoo toog ci benn taabal ñu ne ñun jullit ñi anañu ñun ñëpp yëkkat suñu loxo taabal ji ñëpp nekk ay jullit ñu ne waaye bu nu déggoo dégg ngeen ah ñu ne waaw ñu daal di koy signé ku nekk signé bu nu déggoo ñu dem ñibbi kan la ñuy déggoo ba yowmal xiyaamati duñ déggoo mbokk yi iftiraqu nas tàqale bi ñu tàqale nit ñi daaxila kullu dawla biir société biir réew mu nekk ila tawaif ñu def ko ay kuréel kuréel yi kuréel këri tarixa allahu akbar këri tarixa kër sàmba kër demba kër moodu léegi sax jigéen ñi bokk nañ ci kër kinne kër koddu ba kay ku nekk ak sa kër ku nekk bis bi ngay màggal bis bi ngay gàmmu bis bi nga am sa ziyaara kañ la ñuy nekk benn kañ yamuñu ci lool de waaye waa ahzaab ginnaaw tawaif encore ahzaab ñu ñëwaat dagg-dagg ay pàcc ahlu sunna rek léegi kenn xamatul ñaata lañ ixwaani ñeenteel istihdaaf al ada aqidatu l umma wa miqdaratiha allahu akbar noonu yi daay occasion wu bis bu nekk di tàqale te julli di xamuñu ne lii di xew ni noonu ñooy koy def noonu ñooy encouragé mbooloo yi tàqali ko noonu ñooy encouragé kuréel yu bees yi noonu ñooy financé noonu ñooy xamb taal yi ñu profito ci pas pasu xeet wi ak ay gëddaam yépp ñu yàqate ko dëkk julli di amatuñu valeur démb benn xale boo xam ne mi ngi sénégalais la mais yàlla dafa def mu nekk nasa la nekk nasa démb dama ko gis ma ne ko yow nooy dundee Amérique mu ne ma xanaa saa yu sama portable noddee ma war a julli ñu ne ma terroriste loolu rek laa fa nekkee terroriste man maay terroriste bi saa yu ma waree julli daal ñu ne terroriste yaa ngi julli ji maanaam mu ne aw ma tur lu dul terroriste loolu moo xew tey ci àdduna bi ku romb rek ñu xam ne julli la ñu ne terroriste te duñu xool ñoom lu ñuy def xoolal li xew France lu ko sabab kañ la ñu tooñ Muhammad ñu bàyyi ñëpp waxuma sax ci jullit yu ndaw ndawaan yi waxuma sax ci ñiy kilifantu kenn waxu leen dara ñu dem ba ci sommet ba Muhammad ñu tam ko dëmm dessiné ko def leen lu leen neex wax julli di jóg di wax ñu utal ñooñu ay garde corps ne leen am ngeen seen droit lu leen neex ngeen wax allahu akbar loo neex nga wax ba nga tooñ jàmbur léegi moom bu fa yow ñu ne voilà gis ngeen lu ñu leen di wax ñu ngi nii dañoo ëppal ñu ngi nii rey nañ ñii ñooñu bu ñu waxuloo loolu kenn du leen def dara waxuma sax foofu rek waaye fii Sénégal rek am na ñoo xam ne boo leen waxee doo ñibbi waxuma la ak Muhammad nag ñun ci Sénégal lañ yaafuus ba ba ñuy wax Muhammad dara ñu toog wala ñuy wax sahaaba yi dara ñu toog waaye adduna bi am na ñoo xam ne yàlla moo leen gemb min al muminin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila waaw am na ñoo xam ne ñoom seen lislaam ci seen bakkan lañ ko teg ku mu neex nag nga fowee sa diine ah ku mu neex nga nekk nga nga modéré ku mu neex nga négocier ku mu neex nga ni ñun ñun dañuy baalaate waaw ñun dañuy baalaate mel ni mbir mi yaa ko moom mais ku mu neex nga bañ a baale wala c'est ça loolu mooy wax kon pas-pas bi kii bu amee droit ne man damay baale kii am na droit ne du ma baale wala kii am kii dul baale amul droit moom tamit moom amul benn droit c'est ça kon loolu mooy mbir yi kon li waral loolee mooy bañ a tooñ bañ a wax kilifa jàmbur dara bañ ko adressé lu bon bañ ko ñaawal bañ ko ab jullit du def loolu du ngeen fekk mukk ab jullit bu dessiné Isa wala dessiné Moussa wala dessiné Youssouf wala dessiné Souleymane wala dessiné Nuux wala Adama di wax ci moom lu bon lu tax amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi waaye wal muminuun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriq bayna ahadun minhum loolu la ñu yàlla sant ñun duñ tàqale kenn ci ñoom parce que sunu borom moo nu sant loolu ixwatal iman juróomeel mooy muwalaatul aada min fiat min daaxili l mujtama al islami ginnaaw bu ñu tasee addina bi daf koy pàcc-pàcc ñu ñëw ci biir dëkk yooyu ñu defoon pàcc-pàcc tasaat jullit yi ci biir pàcc-pàcc yooyu encore da nga ciy fekk noon yi ngemb korel gi ne leen dal leen ci kaw ñii waaw da ngay fekkaat loolu muwalaat al aada min fiat min daaxili l mujtama al islami da ngay fekk wala li xew Égypte noon yi ñoo ngemb armée bi ne leen rey leen jullit yi te ñoom ñoo waxoon def leen démocratie ñu def démocratie woote jullit frère musulman ya gagné ñu samp président bi mu waat peuple bi yëpp ànd ci ñoo ko fal lan ngeen bëgg a dund ñu ne charia ñu wote ko mu jàll cent pour cent waxuma sax dix-neuf wala virgule cent jullit yëpp ànd ci mu jàll ñu ne non ñi bu ngay leen fi bàyyee dañuy samp état islamique ñi ñëw rey ñii ñi ñu jàppale ñu jàpp président bi tëj ana démocratie bi tubaab bi di wax anamu kon chaque jour ci biir xeet yooyu ñu daggatee dañuy ñëw encore faral ñenn bàyyi ñenn wax ñi ñu faral rey leen ñeneen ñi kenn du wax ñun ñoo nekk seen ginnaaw ñun ñoo yor droit yi mbokk yi juróom-ñetteel juróom-benneel mooy taxtiitul aada li darbil umma baaduha bi baad ñu tëral ay stratégie ay yoon yoo xam ne dañuy tax jullit ñi di reyante xoolal Syrie Syrie amatul ci àdduna lépp a yàqu su ngeen di seetaan fan yi Al Jazeera barki démb démb tey ña dawe woon xeexu Syrie amuñu fu ñu fanaan sedd bi moo leen di rey glace gi mooy taw seen kanam démb laa mujjee déglu information yi astaghfirullah tey ci fajar onze morts yoo xam ne dañoo glacé ba sedd ba dee kuy parce que amuñu fu ñu nekk glace bi mooy toog seen kaw Syrie moom amatul yàqu na ñan ñoo fay xeex est-ce que ay nasaraan ñoo fay xeex ak ay yahud est-ce que yahud yi ñooy xeex ak ay nasaraan ay jullit ñooy xeex soo demee Irak kazalik soo demee Yaman kazalik boo demee Pakistan kazalik jullit yi ñooy xeexante fexe bu jullit yi nañu reyante seen bopp yéen ngeen toog fee di seetaan ku jeexal arme ngeen jox ko kañ la jullit di di yeewu kañ la jullit di yeewu da ngeen fexe ñu reyante seen biir juróom-ñaareel mooy isaatul mafahim alxatia li masaili din boobu gën a dangereux da ngeen fexe julli di bu ñu am compréhension bu baax ci diine ku nekk na dégg diine nu mu la neexee waaw ku nekk na dégg diine wala wala zikrullahi akbar kii ñëw ne julli amul importance lu tax mu ne wala zikrullahi akbar yàlla nee na mën ngaa jàpp rek te bañ a julli di wax astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allahu akbar nga ne ko lu tax mu ne la wala zikrullahi akbar gis nga la hawla wala quwwata dégginu diine bu bon na ngeen fexe ba bu ñu dégg diine ku nekk na nga yor sa façon firi bopp bul firi nu yonent bi firee woon bu la sahaaba yi jàngal diine bi nu ñu ko déggee woon yow nit nga am nga xel hum rijal wa anta rajul ñoom ay góor lañ yow góor nga waaw da nga am sa droit da nga am sa xel da nga am sa dégginu bopp fexeel texte diine yi ñoom niñ ko déggee woon yow tamit nga dégg ko waaw li sii sii wax barki démb nee na am na ay ay aaya wala ay hadis wala ci texte diine yoo xam ne dafa dangereux il faut ñu dindi ko fi parce que dafa yàq humanisme dafa yàq humanité bi en tant que président ah bu bu jiite ay millions musulmans nga taxaw ci rajo taxaw ci télé adduna bi yëpp nga ni islam daf ci am ay textes yu dangereux dafa yàq dund nañ ko ci war a jëlee ñëpp kenn waxul dara ñëpp toog di la xool. juróom-ñetteel isaatu razaliya fil umma min xilaali wasaa'il al i'laam wa siyaasa wa siyaaxa mbokk yi. na ngeen fexe bu ñu déggee diine déggin bu bon ngeen fexe ngeen tasaare ak mbon ci xeet wi fan ngeen koy jaare ñu ne ci information yi ak tourisme na ngeen fexe ba télévision yeeg rajo yi journal yi buñ ci bu leen ci génne lu baax waxuma ngeen dem fenn ci àdduna bi ngeen seetaan loolu waaye da ngeen di ñëw Sénégal ngeen xool télé yi nekk Sénégal ngeen déglu rajo yi ngeen xool émission yi ngeen lire journaux yi amul lu baax lépp a bon loolu moo tax xeet bi bon parce que xeet wi li leen di dundloo ci information bi lañ koy jëlee lépp lu génn ci télé bi léegi ci suba balaa midi nga gis ko ci mbedd yi da ngeen fexe ngeen tas ak mbon fan ngeen koy jaarale ci rajo yi ak télé yi bu ñu génnee diine nañu génne lu bon kese pour réew mi bon bañ nañ ko ba rëdër ñi jiite télé yépp ñi nekk seen ginnaaw mooy yahudi ak nasaraan yi boo fa amee benn diine booy def sax diine bi buy leer ñu ne la sa waay yow gis nañ ne daal yow sa émission bi dañ koy arrêté am na benn rajo bu tuddoon oxygène bu nekkoon Pikine am benn waaye bu tudd Mouhamed Ndiaye bu fa daan def émission bu tudd lii riir ci dëkk bi ndax émission boobu nu mu graaye woon dafa xëy benn bis rek mu ñëw di def émission bi gudd ñu ne ko sa heure bi jaay nañ ko benn waaye moo ñëw jënd heure bi yëpp daan ne tegal leen ma musique ba mu jeex tàkk mu ñëw ñu ne ko demal nga ñibbi te yaa moo émission jënd nañ heure bi mu ñëwaat beneen yoon benn maire ci benn gox benn maire ci Sénégal ci benn gox ñëw jënd émission bi daan ne ñuy wax waa ji ñëw jënd lépp noonu la waa ji toogee amatul émission parce que nee nañ émission bi dafay déranger nit ñi parce que ay dëgg yi ñuy wax dafa diis quoi kenn mënu ko dékku waaw lu xam nga luy luy problème mooy jullit yi ci jamono yooyu démb benn xale bu jigéen bu jógee Canada moom laa doon waxtaanal dafa demoon fan yi mbuur ay bagage yu mu indi woon di ko jox ay orphelinat yoo xam ne mooy xale yooyu ñuy jur di leen sànni ak ñi seen yaay yi di maye. mu dem mbuur seeti fa benn orphelinat mu ne ma bi ma fa demee fekk naa fa lu ëpp ñaari junni xale waaye lu ma metti mooy tubaab moom moom loolu te xale yooyu yëpp dañ leen di jël ndeysaan di leen yóbbu France di leen def ay chrétien ay doomu jullit waaye ñun jullit yi ndeysaan ñun moom nan toog rek bu ajjuma jotee ñu ñëw julli bu ñu paree dem ñibbi waaw jeex na amul lenn lu ñu war a xadaatal suñu bopp ñun jullit ñi ne war nañ koo def yokk ci suñu société bu ñu kenn toppatoowul ñu toppatoo suñu bopp bu ñu defar ay école di ci jàngal suñu doom bu ñu récupéré orphelinat yooyu utal leen ay barab utal suñu bopp def def def déedéet boo woote woon léegi-léegi nga gis ñaari jullit yu taxaw fale naa ne laa yukallifullahu nafsan illa wusaha mooy li ma doon wax sànq ci compréhension texte yi niñ leen koy jàngalee ixwata al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جرم ينتهي tomb mooy assaayu ila isaarati shuub didda alhukaami wa daxt ala alhukaami li islaali shuub juróom-ñeenteel bi mooy na ngeen fexe ngeen di fetteerlu loo société yi ñuy xeex ak seen gouvernement waaye na ngeen fexe gouvernement bi nañu noot nit ñi di leen noggatu di leen teg lu leen neex looloo tax mbooleem état islamique yi ngeen di dégg dëkku lislaam yi da ngay fay fekk buur boo xam ne wala président boo xam ne lu ko neex mu def kenn du wax dara ku sëqat ñu tëj la ci kaso bi wala ñu rey la wala ñu jël la làq la jant bi kenn du xam fun la yenn saa yi sax ñu rey la kenn du xam fun la suul loolu boo koy dund ci alamul islaam yi du jeex ay nit ñoo xam ne bañ leen reyee kenn xamul fu leen sànni leen yenn saa yi sax ñu jox leen bukki yi ñu lekk leen sànni leen ci àll yi na ngeen fexe ngeen di jeqi xeex en diggante population yooyu nga xam ne ay jullit lañ ak seeni nguur ñi leen di jiite waaye na ngeen fexe encore nguur ya nañ am doole ba bis bu société yooyu di révolté na leen buur yi dóor dóor yu métti kenn du ci wax ñun ñoo yor droit de l'homme ñun ñoo yor nangam te ñun fu ñuy rey jullit jullit amul droit moom ku rey rek après mun ngaa sànni ci mbedd mi fukkeel mooy bas ruuhu tamarrud min kulli sharaihi lmujtama al ibn diddu abi wa zawja didd zawjiha bi xujjati zulmi wal xirman min al xuquq na ngeen fexe ngeen ji ngeen taal diggante ndey ak baay diggante yaay ak doom diggante baay ak papa na ngeen fexe ba xale yi bu ñu déggalati seeni baay waaw loolu lu muy amee ñu ne da ngeen di indi ay droit les droits de l'enfant jox xale bi benn numéro de verre boo xam ne bu ko papaam defee dara rek day woote police papaam ñëw mu ne sama papa dóor na ma ñu jàpp papa ji tëj police loolu moo am léegi gis naa benn xale bu jigéen boo xam ne ci ñaari semaines yi dafa fàq école daw seen kër dem ci benn kër benn waay bu ne moom yàlla yàlla la mu récupéré xale bi mbokk yi ñëw di jëli xale bi mu ne leen ku ko fi laal rek deret day tuuru taalibe mi jël jaasi ñooñu daal ne comme bugguñu xeex te ñun dañoo néew nañ dem police ñu dem police ñu ne xale bi ñaataat la am ñu ne leen 18 ans ñu ne ah mesure na lu ko neex def ñun mënuñ ci dara da ngeen fexe ba xale yi bu ñu déggalati seeni ndey ak seen baay maanaam loolu ñu naan yar islam nga xam ne doom dafa war a déggal baay wa wa qada rabbuka alla taabudu illa iya wa bil walidayni ihsanan yooyu na ngeen fexe mu deñ benn doom bu mu déggalati baayam parce que dafa am droit na ngeen fexe ba jigéen ñi bu ñu déggalati seen jëkkër yi bu ñu sëyati toog ci kër yi boo waxee ñu ne la toog di togg dafa wees jamono boobu wees na ñaari loxoy takk tubéy ñaari loxoy takk sër ñu indi ay financement financé jigéen ñi génne leen ci biir kër yi jigéen ñi nekk ci mbedd mi di tambaambalu fu ñu gis jigéen jox ko 25000 ne ko demal nga jaay gerte caaf wala nga jaay ndox mu sedd bu ko sa jëkkër ne toogal mu ne ko li nga am doyul du ma toog moo ngi nii moo tax jigéen ñi toogatuñu moo tax kenn dootul wax amatul kër yi amatul góor amatul kilifa paa yi da ngeen leen di gis nii rek suñu waxee seen jabar ni leen ah ñu ne waaw ba ba génn naa ci ba set wicc génn naa ci tuub naa tuub naa paa yëpp dañuy tuub kenn kenn déggalu tuleen parce que léegi jigéen ñi ñoo yor kër yi ñoo yor financement yi loolu politique gu tubaab yi la politique gu noonu yàlla yi parce que xam na ne l'islam du du tëralin boobu benn waaye nee na boo demee Europe mu ne ma ñii ñoo fa ëpp droit jigéen xaj ñoo fa ëpp droit ci boo fa laalee xaj ci boo fa laalee jigéen am nga problème ñett yooyu ñaar yooyu ñoo fa ëpp droit kon na ngeen fexe ba xale yi di féttërlu ci seen kanamu ndey ak seen baay seen papa amatul droit parce que utal nañ leen âge même loolu ngeen di dégg fan yi ñu ne mariage mariage précoce amatoo droit maye sa doom bu amee 17 ans 16 ans 15 ans boo waxee ñu yóbbu la police ñu ne mariage précoce te xale bi mun nañ ko ëmbal précoce kenn du wax dara ki ko ëmbal ah soo ko mayee ñu am problème bu benn waaye jógee fa ne ëmbal ko ñu ne c'est la c'est l'accident hein c'est la vie hein mbokk yi fukkeel ak benn isaaru tawaif al muxtalifa daaxil kullu mujtama na ngeen fexe ngeen tasaare ay kuréel yu wuute ay mbooloo yu bokkul jubluwaay daaxila kullu mujtama mboolem société yi na ngeen ci dugal loolu bu ñu déggoo mukk nañu wuute mbooloo yépp ku nekk na contre sa morom bu ñuy jaaree ni ñuy jaar nii bu ñuy nee dafa weex ñi ne dafa ñuul bu ñuy gasee ñuy suul bu ñuy di nelaw ñi nekk ci mbedd yi di yuuxu ba kañ ixwaani kullu hada al mazahir wa salbiyat wa gayriha taxtaaju min uqalaai al umma ila dirasati wa murajaati لإيجاد الحلول المناسبة لها أو التخفيف من آثارها السلبية mbokk jullit yi li lépp ñu gis ci ay phénomènes yuy feeñ ci société bi ay mbir yu nekk sunu kanam yoo xam ne yépp négatif la amul positif dara baaxu ci ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko wax fii tey dafa laaj ñu am xel ci islaam boroom xam-xam yi dafa laaj ñi ci diine yi dafa laaj ñi nga xam ne ragaluñu ku dul yàlla bëgguñu ku dul muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jóg jàngat mbir yi leeral ko pour ñu mun a am solution boo xam ne mooy muccal xeet wi mooy tax julli di daal di mucc mooy tax julli di mën a delluwaat dund seen diine mooy tax julli di mën a nekkaat benn même bu fekkee mënuñ ci dara ñu jóg boog jéem koo oyofal ba mbon gi nga xam ne moom moo wër pëkk dëkk bi mu mën a woyof duñ ne ñëpp ñoo bon waaye ñu ne ñenn ñi boog ñu ñu fexe boog ba ñenn ñi rëcc waaye ñun ñëpp bu ñu croiser suñu loxo ku nekk ne sama bopp sama bopp mbokk yi tuyau bu toj la rek wala dex guy màmm la wala ngaan baa ngi ne la di ñëw boo jëlee sa peel taxaw sa bundu kër di fatt sa bundu kër ne ndox mi di dugg yeneen kër yi bu ñu feesee ba mu fees dal ndox mi bu amatul fu mu dugg fu mu jëm sa biir kër kon nanu jóg gëm sunu diine jàpp ko delluwaat ci valeur islam yi xam ne inna diin inda allah al islam yàlla lim ñu gërëmal mooy islaam al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islaama diinan loolu dong moo fi dëgg allahuma arina al haqa haqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya muthabitu al qulub thabbit qulubana ala taatik اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله